ñu jukki leen li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy doore rek ak El Hadji Omar euh, Diène moom mi nga xam te rek moom la ñu teg rek ci bopp euh, commission nationale de concertation sur le croissant linéaire ginnaaw rek bi Mourchid Ahmed Iyane Thiam làqoo nag moom rek lañ ci daal di toftal ca bopp ba niki tey jii nag dafa xamle ne dafa dañ ko doon jéem rek agressé bi ay huit heures quarante cinq minutes jotee foofee ca RFM la ko daal di xamle moom Imam Omar Diène daal di nay xamle nag agresseur bi dafa wàcc rek ci otom daal di rek jubal si rek bureau bi nga xamante ne ni fa lay liggéeyee jëm ko rek bëggoon a agressé ba jotoon nañoo sax seqante ay coup waaye nag xam le na ni moom mi ngi sant yàlla bu baax a baax ndax ay gardien dañoo daal di ñëw rek intervenir rek ci noonee la waa ji nag daal di daw moom nee nag xamul lu waral rek mu daal di bëgg a def ni mel waaye nag police nag daal di ubbi rek ab enquête ba xam le ne sax ci ab message vocal bi nga xamante ni jagleel na ko taskatu xibaar yi moom imam Dieng xam le ne ni agresseur ba nag jot nañ koo identifier ba police nag ma koy wéyal nag ab liggéeyam lépp lu ci fasaa dañ leen ko indilaatal ah, ci suñ yeneen ni jotaayu xibaar ñu àddu ci leneen beneen geste bu xalif général des mourides def mu di Serigne Mountakha Bachir askan bi yëpp nag daal di koy rafetlu mooy ñi nga xamante ni bii rek ñooy woy di dund ak jàngoro ji di insuffisance rénale moom nag Serigne Mountakha Bachir buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi di ah, Seneweb dafa daal di yëkkati rek benn somb tolloog fanweeri ah, million daal di koy joxe rek ngir di ubbi rek ab centre de dialyse dund bi lee feebar foofee rek ca cité religieuse bu Touba ngir xam ne nag ne Serigne Mountakha Bachir daal dinay xam ne ne bis bu ñu rek defalee liggéey boobu rek foofay ca jannatul maxwaa ba noppi dafay daal di jël rek caabi daal di koy jébbal nak waa ministère de la santé de laction action sociale mu nekk nag ak dimbal goo xamante ne nii xalif général des mourides daal dina koy def mu nekk nag geste boo xamante ne bii rek askan bi yëpp ko bokkandoo rafetlu ko ñu di ko ñaanal rek suñu borom daal di yàggal taxawaay bi bi nga xamante ne lool euh, ci boppam ñu àddu ci leneen gis nañ nag ëttu kaay bii rek di laas dafa daal di xëy rek bind ab information boo xamante ne nii rek dafa soxal njiitum groupe Futur Média nekk tamit roi du mbalax mu di Youssou Jigéen Ndour ngir xam rek ne dafa daal di rek décider di prendre sa retraite musicale ngir rek dakkal ak wayam noonu rek ko journal bi daal di bindee moom laas moo ñu ko daal di xamal niki tey rek ci alxames ji yem ko benn fan ci weerum avril ndax staffu kenn rek ci Youssouma Jigéen Ndour ginnaaw ba njokkoog moom daal dinay xam ne ne bi Thione Seck làqoo nag ba jamono ji ñuy wax yéen kii di Youssouma Jigéen Ndour demul studio répété wul bindul dara luy wane ne moom rek dafa bëgg a continuer lii di uh, way mu nekk nag benn information boo xamante ni rek waa laas ñooñu ko daal di xamal uh, li ñu mën a jàpp rek jamono ji moo di kii di Youssouma Jigéen Ndour nekkul benn yoon di def uh, répétition nekkul benn yoon tamit di bind dara loo xamante ni day firndeel ne dina rek continuer way ba Fass di xam ne ne kii di Youssou Ndour jigéen dafa daal di bëgg a dakk rek li nga xamante ne ni rek moo di musique ñu àddu ci leneen wàllum tàggat yaram ñu gis na rek Cheikh Tidiane Gomis nekk rek journaliste foofee rek ca wàll fajiri daal dinay rek mer ba futti ginnaaw rek ci ab entretien bu mu seqoon ak ñenn rek ci suñuy naataango lam fa xam ne rek mu di nee na kii di Aliou Cissé dafa war a rek jóge ci bopp équipe nationale ndax nee ginnaaw ba mu fi nekkee ba tey gisuñu benn yoon rek loo xamante ni indi na ko fi muy benn ndam boo xamante kii di Aliou Cissé indi na ko fi nee na moom depuis 2019 ba tey mi nga xaar rek ñu daal di koy dàq waaye nag gis na ne kii di njiitu réewum Sénégal Sénégal di Macky Sall moo daal di xamle ne dafay continuer ki nga xamante ni moo di Aliou na nag gisul benn yoon njariñ boo xamante ni rek amal na ko bi léegi xam ne li ni mel moo di Cheikh Tidiane Gomis nekk journaliste foofee ca Walf TV dañu koy daal di jeexalee ak Modou moom mi nga xamante ni nag moo nekk roi des arènes moom nag dañoo gis ne dafa daal di rek démissionné ci l'écurie bu Rock Énergie ginnaaw rek buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni rek mooy di njiitul écurie ba di Cheikh Gadiaga ginnaaw mu imposé ne képp kuy mbër rek ca bokk ca boobule écurie dafa bëgg rek ñuy entraînons ensemble rek du lundi au vendredi. ordre coach bi di euh, Pape mbay mu mel ne nag boobee ordre kii di Modou Lo respecté wu ko benn yoon biñ sukkandikoo rek ci cey Dakar ba tax rek gajaga mi nga xamante ni moo jiite boobu boobule écurie daal di nag amande lu tolloog un million de francs CFA ngir rek sanctionné ko kii di euh, Modou Lo mu nekk geste boo xamante ne ni rek euh, Modou Lo wu ko benn yoon ci noonu rek la daal di décidé daal di rek euh, bàyyi rek ci boobule écurie mu mel ne rek kii di Modou Lo daal di nay démissionné ci écurie Rock Énergie ñu xaarandi rek ba xam de ban écurie lay demaat lépp lu ci fasax dañ leen ko indilaatal la ci suñu yeneen jotaayu xibaar ri rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di daje doon ba ëllëg ak jàmm.